macha allah ñëpp kontaan nañ xol yëpp seet nañ tabarkàlla xanaa rek yëkëti ay cadeau yu cant yu gatt rek jëmele ko ci mbokk yi ci tew yëpp ak ñi nga xamni japp nañ ci bis bi tabarkàlla ba yalla def mu actif yi ñu sant leen gërëm leen bu baaxa baax bu ko defee comme ni ko waxé rek wa di sant bu baaxa baaxa baax wa dëkk bi yëpp diko commencé ci borom dëkk bi gis nañ teewaayam gis participation ak mbolem dëkk bi muy goor muy jigen ñepp kenn ku nek teew nga yëkkati li nga am def ko ci bis bi ngir yalla ak bëgg lepp jàkk kon ñu ngi leen sante bu baax a baax cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee fu mu yem naka non lañ sante daayiratul mutasine bi nga mo ne moo nekk ci dëkk bi ñoom gis nañ taxawayam bu baax a baax lépp rafet na sha allah ak daayira bi nga xam tam mo wote muy antal ahmadiya ñoom ñoo wote tabarkàlla teew nan da gan yi japp ci bu baax baax rafet na sha allah ñu leen sante bu baax baax di beral cant ak ngërëm nak abdul Aziz Amar macha allah tabarkàlla amuñu payam ci yëf yi la bokk mën na ni mooy borom sax waaye taxawaayam ràññeeku na ci lool lool da ciy sonn guddeeg bëccëg ba ko jàppee ba léegi saa yooyu addu muy amul problème defal lii defal laa dinaa def lépp rendre le compte loolu la ciy teg mooy dox mooy sonn mooy woote mooy guddi mooy bëccëg lépp ba lépp teew waaye nag laa xarwa tabarkàlla ndax loolu la donn lii dañ koo sof rek sosuñu ko feen ko fekkoon ñun ay di ko doxal Baye Cheikh Tidiane bii di sëñ euh, sëñ Baye Donde ñëw na fii te baayam li ko fi indiwoon ci la bokk daayira la ñoroon muy daayira bii tey indi nañ ko fii daayira bii boobu ñi lañ ci sof rek kon bu tax taxawaay bu mel noonu tabarkàlla dañ koy jaajëfal ci am ci mbégte bu baax a baax yàlla na yàlla fay ko yiw bu baax te dëgëral ko naka noonu hélas amuñu payam moom it tabarkàlla guddeeg bëccëg mi ngi ci xam naa moom soldaaru kër gi la waaye beral nañu loxo ba loo xam nañ ko bu baax a baax yàlla na yàlla sàmm ko waa Tivaouane 24 ñoom it mention spéciale tabarkàlla ñu nag ñoom guddeeg bëccëg vidéo yi day dagg di monter di sonn pi bu jàll mooma te lépp mi ko koy def direct nii te laajul dara la kon nag moom it yàlla na yàlla barkeel mbiram ñu ngi ñaanal ñëpp daal di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa programme bi day way incha allah ba ca kanam ñu ngi jégalu ñëpp asalaamaaleykum Wow, jere nge jëf boki, sen sëñ Babacar kondan nañ trop Amar yow nit ku baax nga ndax yow sëñ Babacar mbir mi dafa lek ci sa loxo ba pare nga delu ko ñëpp te nag waxande wa nag kon te bir néeg ba la taxoon mu lakk mooy diis ndax néeg ba dafa lak waxande wa ba jeex tak ban ko laajee Bamba dañuy dis dong nga tax mu lakk ba jeex kon kep ku bëgg raw na nga woyof kilifa nga nit ku bax nga ta woyof nga toy tabarakallah moy kon ñu ngi lay ñaanal yalla yalla guddal sa fan te may la wir ak sarak yep ndax ku ne xam na ni li ben nit mënu ko organiser su réussir ni rek moy ya ne ca bopp ba njabot yi ci sa ginnaaw ay jambar lañ kon seigne babakar ñu ngi lay ñaanal yalla ci sa barki turandoo yan bi yalla bu mu diis Abdou mi ngay wax ci limi def ci bis bi wax ni budul bisu gamu tiawal bis bi ak ko geunal ndax bis bi bisu mamam la bisu leppam la motax ma ngi fàttaliku bi ñu woree ba mam ñenti fan biñu woré korité ba mam ñenti fan lama abdou ni ma foo ne ma wax ko ko mu jaar fa jël ma ñu and dem kër sam pour wax la bis bi ni mu ko fonké bis bu jot mu may woo guddeeg bëccëg subaak ngol kon xam na ni ci ay bokkam la ñëw xam na ni ci biir këram la ñëw waaw ndax nit ki kat bu fekkee ne yàlla da koo dimbali mu génn am teraanga donte la fasu gattax la bu ko dawalewul fa mu juddoo rek amul sens moo tax bis yëpp réussir ci moom dina neex waaye bisu tey bii réussir nag wax dëgg yàlla ak yonent bi neex na ci xolam trop mais man damay sant ci Ahmed Tidiane Mbaye nii ndax gis nga téeréem bii mu yor gàmmu la jëm nii wallahi fekk naa ko mu pare mu pare ba jël sac bi def ci ay téeréem ma woo ko ni Cheikh Tidiane mu né amani ko mission kër gi danoo dab dañoo am takusan gi ni dem ca gandak Amar Abdou Dukure ngi ni man ak mom ñoo and faaw nga ñew ñu dem mu naan ma ngani lan ma xaram maniko xaruma ngi ni di ex sa kër bi may ex ci kër gi man ko fekk muy japp ma xaar ko mu sol yére taxañ ñaar ñi ki këram lañ ko fekk yanu ko indi ngir bañ mission bi bañ a tardé lii yëfi Serigne Babacar la moo tax ñoom ñii bu ñu sax am ñu ko doxal ndax mbir la moo xamante ni ci tegee sa loxo dem boo ci tegul sa loxo dem man nag fii li fi gën neex ci ñëw si Ahmadou Bamba yeeg wa kër Seydil Hadji Mar yi ni ñu jaxasoowee moo tax ñëw ak Amar dama ciy sawar ndax damay sentir bu ñuy way Alaaji Bamba yi yëngu bu ñuy way serigne Bamba waa kër Alaaji Maalik ñoy gëna a yëngu kon lépp benn la ta nak lepp maaram mbacke la ndax da nga naan mbacke mu du Fari Mata Mati Mbàkke Demba Bunna ma Ousmane mu juy sidaj malik nga ni maaram mbacke mam balay sa buri mam ta sali serigne Bamba ño bokku men maam fo ci dakk kër mam maaram mbacke lay ñibbi kon fi genn kër la ben bop la ken mënu ko xar ñaar man nak damay wax ni serigne Bamba njambaram len na tax ma bëgg ko donte la ma taalibi sidaj malik la ku dagg sama deret Tiwaawan a ciy génn mais dafa am wax bu ma dégg ci kilifa yi ñuy wax ne Serigne Bamba moom la waxoon keroog bi ko tubaab yi jàppee di ko yóbbu génn góor da koo fekk fi mu taxaw ni ko sëriñ bi mu ni ko naam mu ni ko fii nga jëm dey ku fa mës a dem wàññiku woo te ku fa mës a jëm lañu la teg diis na mu ni leen bakkan bii de laa xam ni newul ci sama loxo wóoruma de ba xam dina ko fekke waye kima jox bakkan bi tànk maa ngi noyyi lépp ma tek sama jom atan na gis nga jom joju motax bem bepp mourid warta ya yaafus ci jomi serigne bamba joju la wara a tege loolu nag ñoom ñu ngi ko doonloo sen mam maram Mbàkke Seydil Haaji malik mu mel nonu la def ñew tiwawon 1894 fekk fa ay serigne seydil Haaji malik tebeski gi mu ñëk tebeski tiwawon serigne ci dañu teug am dënd ni ko Alaaji malik jité amo tebeski yap nga am mais ci sagesse sam ak mbaaxam tax Seydi Hadj Malick wan leen mbaax ba sëriñ sa mujj daje ci seen biir lem seen i sijaada lem seen i kenn ku ca ñëw ci Alaaji Malick ni ko may ñu salaatul fatiha ndax mbaax gi ñu nu wan xam nga ni yaanu matub sëriñ waa ñaar ñii nag bu nu bokkee maam ngeen daje fii ci ngànd ak amar kon yéen bokk rek ngeen war a def ndax loolu leen seen ñaari sëriñ yi sant loolu leen seen ñaari maam yi sant boo demee kër sëriñ bamba darmanko yi darum sëriñ bamba ñii amar lañu sant ñii saadi ñii sant ñëpp ay darmanko lañu bo demé keur Sidi Hadj Malick ña fondé ay darman ko ñi amar lañu sant kon yéen men men lola maam lolo waral ma gande ak amar neex ma abdou nak di sama président daïra bo xamni ni Serigne Abdou Alhaji mo japon ci loxom ni ko butase, bunutase bu tassé bu nu tassé yowmal mal xiyam yow la koy laaj lu ne mu ngi ko ciy def tabaski bi passé ñun suñu daïra ben xar lañu jënd jox ko xalif général de Tidiane mo lamb posam genn ci 600000 jënd ci benen xar dem yobul ko Serigne Moustapha bu Serigne Abdou njambar la kon bu newee ci ay mbokkam war nañ leen wax la mu nekk Tiwaawan jàmbaar la liggéey werd salaatul fatiha tarbiyu waa kër Sidaaj Malik dem këram loolu lañ xam ci moom